ngeen jubóo ci kanamu EBRD na waaye bu dematoon yàqu dina bëri kon di leen nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen masaw di wax ci sama tur ak turu délégation leader yi ma àndal yëpp suñu contenté suñu satisfaction suñu mbégte ci nii ngeen teeroo may eh, jiital ci nuyoo bi njabootu suñu sëriñ suñu goro maam Ansu Ñaŋ bu di ko ñaanal yàlla oyofal suuf ci kawam xaare ko aljana yi gën a kawe mbokk yi nañu tuuti karam ndax fàttali la ko léegi 2017 lañ fi ñëw tournée boobu mbir mi demeewutoon nii ñu tertu woon ñu fii ci biir dëkk bi ñu am lu ñu seppoon ak waxtaan waaye gën saa bëri ñi fa nekkoon matuñu cinquante personnes xanaa kon tey bu ñu taxawee fii ci route nationale bi lu toll nii ci am mbooloo teew fi dañuy dellu ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax yàlla rek mooy maye yàlla rek mooy maye du waaye yàlla li muy maye day fekk dëgg lal ko bu doon li ñu tax jóg dëgg lalu ko gaw ñu fi nekk ne nañ fi toog ba heure bi di ñu xaar Moti Karang ngi gërëm ñi jóge ci fu sore sore rawatina ñi jóge ci Pastef Gàmbi ñëw tey dajeeg ñun fii Karang amaana sax nag waaye bu leen jàpp ni promesse la waaye lu ñuy xool la rek ak directeur de campagne bi mën na am bu ñuy traversé pour continuer Casamance bu ci xajee di def bu ndaw Gàmbi ndax li fa nekk ci Sénégalais bëri na te la ca ëpp nag suñuy soppe lañu te dañuy wote ndax am na benn am na député Afrique de l'Ouest yoo xam ne dañ leen war a topp kon Fadilou da xool loolu ndax mën na nekk mbokki Karang léegi seen coordinateur rappelé na ko ma ciy profité félicité ko félicité mboolem seen coordination ñu ngi doon suivre lépp nag te résistance bi amoon fii Karang defe naa amul fenn ku ko ëpp résistance au Sénégal li jeunesse su Karang daci xeex bi mënu ma ne bëri na foo xam ne mun nañ ne daj nañ lu ko raw door nañ leen lacrymogène tiire nañ leen ay bal am na ñu fi jàpp yóbbu leen tëj leen loolu jaral leen ko ba ngeen taxaw taxawaay boobu xam nga ñun ñuy jàmmarloo ci politique que ñu nag ñoom nekkuñu bi bokkuñu motivation ñoom nguur ak nguur moo leen tax a jóg ak njëriñ askan bi a jóg bokkuñu xam nga Ivoirien yi dafa am proverbe bu ñuy wax nee nañ tous les moutons se promènent mais ils n'ont pas tous le même prix bokkuñu de moo tax ma bëgg leen wax fii dalal seen xel leen jaraloon loolu at genn wàll ci gannaaw boo ma lacrymogène yaa ngi doon tàkk fii oto alkaati yee ma gis muy tàkk ñi ngi doon jëflanteeg yéen loolu mu leen ko jaraloon àdduna du dox àdduna du dox ba ngeen ne président Bassirou Diomaye Faye mi ñu fal Ousmane Sonko mi ne premier ministre ak assemblée nationale bi ngeen ñuy jox majorité décevoir nañ ñu wala trahir nañu loolu bu mu saam bu ne bu ñu jógee ñun di xëy di dem suñuy bureau man bu may jox bu ma fekkee sama oto dem sama bureau bu may xoolee ci biir oto bi di xool Sénégal lenn rek laay xalaat man lan lay layoog yàlla ëllëg ci sama diggante ñii yow rek laay xalaat ko leneen saa su ma jógee saa su ma jógee di jóg sama bureau ñi gëmoon bi ak yeneen ak yeneen war ñu ñoo gën a lu ko may rek nañu ak ñoom moo tax politiciens yi ñu jëflante ñun ñoom xamuñu la xew te yàlla nag yéene lay fay de ñu yàlla bis bu jógee suñu xol rek bu ma ñëwoon fii ma fekk ñetti nit loolu moo am ku ñu jox réew rek dafa fekk ci jamono jooju am na loo waxoon Sénégal yi woon gannaaw parce que nag nit ñi am nañ seen fulla moo tax nag mars 2024 le 24 mars joué ngeen premier mi bi jox ngeen ñu pouvoir exécutif tuuti rek ma yeggali parce que guddi mars 2024 de la république jox ko 54 pour cent waaye benn cër ci pouvoir bi rek ngeen ko jox yéen ñëpp lu sa jàng gàtt gàtt xam nga ni réew dañ ko tënk ci ay cër ñu tuddee leen ay pouvoir bi nga xam ne mooy président de la république ak premier ministre ak gouvernement ak administration loolu pouvoir exécutif la benn la ngeen ko jox benn. assemblée nationale moom beneen pouvoir la mooy pouvoir législatif ca ngay voté loi ca ngay voté budget ca ngay contrôler action gouvernementale waaye ca ngay dégloo lan mooy jàmbatu askan wi nga ay seer ko saafara kon su ngeen joxee président Diomaye mooy li ngeen ko joxoon nanguwaat ngeen est-ce que waa def loolu liñ leen waroon ci juróom benn weer yi dal na seen xel kon deuxième tour la ñuy xaar ba xam ku ñuy soutenir deuxième tour bi nag jot na mooy ñun dañoo bëgg deuxième tour bi gën saa gàtt ñu am 70 pour cent à l'échelle nationale. mbokki Kara temps bi dina gàtt pour ma développer yu bëri. wax naa lañ cey def fële ci Foundiougne ci diir bu gàtt si diir bu gàtt du bu ngeen génn teeru dinañ ko allah wax ngeen maasewul ci dëkk dañ leen présenter programme bu ñu tuddee Sénégal vision 2050 2029 war a ñëw taxawaat sa kanam boole ak ñoom seen loolu lépp ngi ci programme bi. yéen yor nañu seen carte waaye benn benn yi ko jëlagul dem leen ngeen jëli seen carte parce bi am na solo. ni ni solo bu. kon dañu bëgg taux de participation bi bi nga bi amoon présidentielle kon na ngeen génn dem ji. sept heures du matin dañu ak ay jeunes bu leen xeeb élection bi la ca des nag la ca des nag mooy sudi te xam naa fi ngeen ma teg kenn essayé génnati réew mi ay ndaw ngeen góorgóorlu yi nga xam ne moom la ñuy roy tey kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah merci.